mbokk yi ñëw leen ngeen découvrir suñu ay lumière am na nañu ay contact dernière gamme ay lumière intérieure wala extérieur am na nañu ay spot sol escalier seen salon fépp fu ngeen mën a bëgg si biir kër gi bu ngeen bëggee lumière ca kaw kaw ca kaw mur ba la société TAI avec l'exploitation de la source de Touba Bogo lance la nouvelle marque d'eau minérale Aïno nom tiré de la source de la miséricorde Aïno Rahmati Aïno allie pureté et qualité maktabatu Touba Daaru si Touba Daaru Xudus mi ngi si yoonu Daaru Muxti mbokki taalibe yi bu ngeen fi agsee fekk fi Baye Serigne Lay moo leen yembal lépp luy jumtukaay ngir ngeen jaamu yàlla ngir yokk xam-xam ngir seeni i gëstu dama ni yemb na fi alquranul karim ulumul quran ulumul xadis am na ay téere yu wute. ngi leen di ñaanal màggalu jàmm. ne dëkk bu sell bii Touba dëkku xéewal la ak teraanga waaw ku wax lu jëm ci wàllu teraanga wax lu jëm ci courant entreprise Touba électricité générale solaire waaw di kër gi leen di jaay ak ji leen yombalal lépp lu jëm ci wàllu solaire ba noppi nag monteel leen ko moo xam muy solaire industriel wala domestique muy seeni kër ak lépp lu jëm ci seeni dëkkuwaay wala barabu liggéeyukaay. ndigal jëfee tapis rouge doon seen taalibe di liggéey ngir seen mbégte ci tapis rouge dafatina mëninam indi leen spécial promotion ci ay salon Louis XIV à 799 000 salon royal rafet te am rouge yéen la fi nekkal xoolal yi les salon ci 599 000 Proximville daal ma nga nekk ci Ndakaaru fa nga xamante ni mooy Nord Foire Dieg Saaw adresse bi nag di villa numéro 721 jokkoo leen ak ñoom ci 77 645 53 31 mbaa ngeen def 77 749 79 53 10 kër daal képp koo xamante ni bëgg nga mu am kaaraange Proximiville daal ñoo ma ca doy. asalaamaaleykum téléspectateur Rafah TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo siyaar leen sant leen ci kóolute gi ak safoo beeg teewlu bi ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général kullu murit di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. ba li mu yéenee liggéeyal Serigne Touba mu defee ko ni mu ko soobee te ànd koog taalibe yëpp. ñu nag seen plateau spécial diggante Serigne Touba ak rakam ju baax ji maam Thierno Birahim borom Daarul Moxti. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina yéen ñi bàyyi xel seen bi di Rafah TV ginnaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, di am mbégte bu baax a baax dellusiwaat ci jataay bi ni ñu ko baaxoo woon ñi nga ànd ak Oustaz Alioune ci. màggalu Touba comme niñ ko doon euh, baaxoo rek yàlla dogal na tey ji suñu borom dogal ñu toogaat ak moom mooy borom xam-xam boo xam ne kenn dootu ko présenté kenn ci réew mi ci ay jëfam yoo xam ne Sénégal yëpp teg nañ seen bët ci wàllu liggéeyam rawatina ci bennoo gi nga xam ne fexe na liggéey ci loolu rawatina ci wàllu kilifa diine yi moo am solo lool kër gu mu fi dugg rek day mel ne mi ngi ci këram kon oustaz ginaaw bi nu la dalalee ci Rafah TV ñu ngi lay sant ba di la siyaare ci. naaj weeg tàngaay bi ñu lay jox nga nuyu mbokki téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel. bismillahi rahmaani rahim rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli sëñ Cheikh maa ngi lay fay nuyoo di nuyu mbalam ñu seen bi Rava TV ci biir mi ak ci bitim réew di ñaan suñu nuyoo bi mu fekk leen ci jàmm. Euh, oustaz euh, ginnaaw ci ya xat-xat yi màggal si nga ci jàmm mbaa amoo benn jafe-jafe ci yoon rek. waaw amuñu benn jafe-jafe ndax man damaa bokk ñi teel a jóg ñaari danaa jóg juróomi fan avant màggal gi comme Mbàkke la ñu dëkk bu ñëwee toog ba ñu ne tey la wala ba ñu ne ginnaaw suba la ñu ñëw loolu moo tax ñaari jafe-jafe ñu du bari eh, am na tuuti rek xëy na embouteillage bu ñuy dugg si Mbàkke waaye eh, amul solo lool ah jërëjëf oustaz ci massa kon ñu ngi lay ci coono bu baax ah, oustaz bu ne màggal ñu wax 18 safar maanaam baatu màggal lan lay tekki ci téléspectateur bi nga xam ne mi ngi satante ba koo xam. waaw baatu màggal day sëñ Cheikh li muy tekki. mooy xam nga sëriñ bi dafa bañoon lool bi daa fonkoon lool sunna. bi nga xamee ne tàmbali nañu di sant cant gi. ñu tuddee woon ko tabaskiwaat. tabaskiwaat ñu bëgg a jàpp ne kon dafa am tabaski un ak tabaski deux. wala tabaski biis. léegi loolu commencé di indi ay njaxas ci penc bi ndax léeg-léeg gis ko xam ne day am moom xaram tabaski un ñëw mu koy xaar tabaski deux sëriñ bi ne léegi nan soppi kon tur bi daal di koy tudd nag léegi taazim ndax taazim mi ngi ci alxuraan fa man yuazim sha'airallah am na ci alxuraan fay naa min taqwal xulub wala ye ci tege léegi mu ne kon nañ jële tur bi ca tur wale indi ko ci tur bi du tee nag continuité moom nekk fi kon taazim muy firi baatu màggal ci bu bu wolof di firi baat bi taasim mooy firi màggal ndax al azamatu ak màgg lay tegg al azim mooy ku màgg ñu kon nañu nañu màggal euh, jërëjëf oustaz ci leer bu am solo boo bu mel ne euh, dimension màggal gi ci wàllu xam-xam ndax boo seetee sëriñ bi léppam léppam xam-xam la tey rim taalif bari na yi mu jagleel ko tawhid yi mu jagleel ko fiqh yi mu jagleel ko tasu bëgg ndaw ñi delluwaat ci loolu ngir jàng ko gën a xam lan mooy sëriñ bi gën a xam lan la woote dëgg-dëgg oustaz boo ñu doon dikkal ci njàngaleem sëriñ bi loo ñuy tontu. lima ma ci tontu rek mooy xam nga sëriñ bi. bind na. jëf na. bàyyi na fi royukaay yooyu ñu ñu wax ne. ñii ci ñoom lañ bàyyi ko. mbind moomu nag. dañu bëgg ñu jàng ko. waaye jàng ko jànguk yëg ko. danaay wax ne bi mu wax naan. Euh, bi muy wax wax ci làkkub Touba. Mm-hmm. may wax waaw mat la bu mat la fa sëy ba naan wam na ahli al ahli bi maa in jaar yi ma ngoog boobu laa bëgg a wax wa maska nii sallim min al fujaar mm-hmm. baatu sallim min al fujaar mm-hmm. al fujaar kon suñ bi dafa ñaanoon bu am ci dëkk bi fujaar mooy lan pluriel faajir faajir mooy lan ku dëng ginnaaw sëñ bi ne na yàlla maa ngi lay ñaan dëkk bi yàlla bu mu am ku dëng nun war nañoo góorgóorlu ba dun dëng dun fara ku dëng dun ànd ku dëng jàmm na ñooy kon loolu mooy illa mooy samaraatu njàng mi mooy samaraatu xam-xam bi moo tax bi suñ mun suñ muntaxaa mi toogee daan ne kon kat nañ daal dellowaat ci delloo siwaat njàng bi donte mi ngi foon mu daal di naal naalam juree jële nga xam ne yàlla na ko àggale jàmm ba naal yeneen jërëjëf waaw ah, jërëjëf oustaz ci leeral boobu boo duggee ci dëkk bi gis imaasu jumaa ji ak taaru dëkk bi nu mu mel boo gisee imaasu jumaa ji lan ngay yëg waaw xam nga lu am solo la mm-hmm. dafa am tasmim mm-hmm. nu ñuy nu ñuy rëddeb dëkk mm-hmm. al madina al fadila nuñ koy rëddee niñ koy rëddee mooy li feeñ ci dëkk bi jumaa jàng ci digg dëkk bi ah? mbedd mu nekk xotti génn ñu def foo ne fii mooy dëkkuwaayu. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñooy kilifa yi. Mm-hmm. ñu wër jumaa ji. Mm-hmm. ñu def barab boo xam ne mooy barab bi nga xam ne ku génn àdduna fa lañ lay denc nga dem noppulu ji. du dëgg fexe ba barab bi am foo xam fii kuy njaxantu di marché wu ca ngay dem. mu am barab boo xam ne bii mooy tool yi. mu am barab boo xam ne mooy jumaa ji tey jàngukaay bi. donc loolu ci al alfadila nga xam ne ñoom moom la gars yi daan xalaat bu njëkk ñoom ibnu xaladoon ñoom seen yooyu dëkk bi boo ñëwee niveau bi la lay jox tasmim boobu la lay jox ci foo ko mën a duggee ci ñeenti xibla yi nga xam ne mooy mm-hmm. penku sowu ba gànnaar ak ba saalum mm-hmm. jërëjëf sëñ Cheikh oustaz dafa bokk suñu laaj yu mujj boo gisee rek ñi ngi màggal ci ndox taataa yi bari yan solution nga mën a joxe en tant que borom xam-xam ci wàllu inondation bi nga xam ne mi ngi am ci dëkk bu sell ah, jërëjëf laaj na solo mm-hmm. mbooloo bu ñu tuddee Rawdu Rayaax mbooloo bu ñu tuddee kon Sénégal ca kanam. Touba ci kanam Touba ci kanam. Mm-hmm. jërëjëf. Mm-hmm. Touba ci kanam. Mm-hmm. loolu ñuy jéego di ay jéego. jombul fii ak diir bu gàtt. bu ñu amee jàppale gi ñu war a am jàppale. jombul lu baree bari dana fi deñ ndax Touba ci kanam ñi ngi gas di jéem a canaliser ndox mi. parce que ndox. ñetti ndox rek ñoo am. ndox ma ci tund wa ndox ma ci xur wa mm-hmm. ndox ma ci diggante bi xur wi mm-hmm. ndox mee sunu borom def na ko bul fi taa mm-hmm. bii mu ne ko wala ngaanal bii mu ne ko toogal fi nga toog léegi nag bu raw du raaxan di xam nga eh, Touba ci kanam bu ñu liggéey ci loolu jomb léegi tey ndox mi daal di fii dañ ndox mi daal di fii jóg yaakaar naa ne incha allah nii ma gisee ren ñu fexe ba fu bëree bëri fendi mhm. donte am na barab yu des mhm. jombul bu yàggee ba yàgg bu demee del si del si rek mhm. lépp dana mën a jeex incha allah incha allah xam na oustaz fi ñuy jeexale mooy sa xarit bi sëñ Amadou Rafahi Mbacké euh, yàlla dogal ñu dippee ko seen bii di Rafa TV muy seen bon dafay liggéey loo am solo ci euh, liggéey sëriñ bi rawatina xutba sëñ Amadou Rafahi yan témoignage yu gàtt rek nga ñu andil sëñ Amadou Rafahi ñu tëjee ko jotaay waaw xanaa am mbégte ci lool ci Touba euh, Rafa TV am mbégte ci Ahmad Rafahi ndax li fi mag ñi doon jàngale mi ngi feeñ ci moom am na dimension wu xutba yi muy def mi ngi feeñ ci moom la ca tege mi ngi génn ci ay xutbaam yaatal ak yaatal ci mm-hmm. bokk gi actualité bi boo déggee ni waxee xam ne mm-hmm. mi ngi koy suivre ku informé wala mm-hmm. te sëriñ lii la yàlla waxoon ne ku ngeen ko gis jàppe leen comme sëriñ bil mahsuufi min kitaabillah wa kaanu ali shuhada fa laa tax saw naa si wax saw ni wala tasru beeti samanan xalila ku ñeent yi nekk ci yow jàppee leen ko bu seen te gis nañu ne ñeenti yooyu mi ngi ci moom mi mm-hmm. ngi koy dundal mm-hmm. ñi nga am mbégte lool wax dëgg yàllam ci mm-hmm. euh, toog ci Rava TV jàpp ne peut-être dana àgg ci moom ñoo ngi ko ci nuyu o passage mm. bu màggal gi xatul incha allah mm. sunu tànk daañu ko dox ba àgg ca ziar ko ni ñu bëggee ziar yi ñëpp mm. yàlla na defal ko tawfiq te bool ñu ko defal mm-hmm. Mm-hmm. Euh, jërëjëf oustaz euh, ñi ngi lay sant baax di la gërëm ci jataay boo am solo bi nga xam ne àndoon nañ kook yow mu mel ne xat nga lool ci màggal gi nekk borom yitte waaye yàlla dogol tey ji nga ñëw fii may waa Rafah TV loo xam ne incha allah bu ko téléspectateurs yi seetaanee dinañ ci bëgg ndax xam-xam jóge na fi boo xam ne bu am njëriñ la ci ñi nga xam ne ñi ngi seetaan mbokk yi doon seetaan Rafah TV ñi ngi leen jaajëfal baax di leen sant di leen gërëm di jaajëfal bu baax a baax Serigne Moutala Fall mi nga xam ne mooy coordonné liggéey bi ak sëñ Badoo gaayim àndal yëpp àndal ñun fii nga xam ne mooy ci Touba doon def spécial safar fii nga xam ne mooy plateau spécial bi leen TV di jagleel xam naa incha allah yeneen plateau yi ci kanam tuuti da ngeen ko mën a siifur mu mel ne mbokk yu bare bari ñi ngi xaar programme Rafah TV ci biir màggal gi incha allah dara du leen ump ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje benn yoon incha ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana waaye nag mbokk yi ñëw leen ngeen découvrir suñu ay lumière am na nañu ay contact dernière gamme ay lumière intérieure wala extérieure am na nañu ay spot sol escalier seen salon fépp fu ngeen mën a bëgg si biir kër gi bu ngeen bëggee lumière ca kaw kaw ca kaw mur ba la société TAI avec l'exploitation de la source de Touba Bogo lance la nouvelle marque d'eau minérale Aïno nom tiré de la source de la miséricorde Aïno Rahmati Aïno allie pureté et qualité maktabatu Touba Darou Sam si Touba Darou Khoudous mi ngi si yoonu Darou Moxti mbokki taalibe yi bu ngeen fi agsee fekk fi Baye Serigne Lay moo leen yembal lépp luy jumtukaay ngir ngeen jaamu yàlla ngir yokk xam-xam ngir seeni i gëstu dama ni yemb na fi alquranul karim ulumul quran ulumul xadis am na ay téere xam yu wute. ngi leen di ñaanal màggalu jàmm. dëkk bu sell bii di Touba dëkku xéewal la ak teraanga waaw ku wax lu jëm ci wàllu teraanga wax lu jëm ci courant entreprise Touba électricité générale solaire waaw di kër gi leen di jaay ak ji leen yombalal lépp lu jëm ci wàllu solaire ba noppi nag monteel leen ko moo xam muy solaire industriel wala domestique muy seeni kër ak lépp lu jëm ci seeni dëkkuwaay wala barabu liggéeyukaay ndigal jëfee tapis rouge doon seen taalibe di liggéey ngir seen mbégte ci gran magal touba bi na rouge i na indi leen spécial promotion addiya ci ay salon Louis XIV à 799 000 salon royal rafet am qualité tapis rouge yéen la fi nekkal xoolal yi les salon ci cinq cent quatre daal ma nga nekk ci Ndakaaru fa nga xamante ni mooy Nord Foire Jaksaaw adresse bi nag di villa numéro 721 jokkoo leen ak ñoom ci 77 645 53 31 mbaa ngeen def 77 749 53 10 kër daal képp koo xamante ni bëgg nga mu am kaaraange Proximville daal ñoo ma ca doy asalaamaaleykum téléspectateur Rafah TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo siyaar leen sant leen ci kóolute gi ak safo beeg teewlu bi ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général kullu murid di ko ñaanal mu yàgg filoo lool te wér bali mu yéenee liggéeyal Serigne Touba mu defee ko ni mu ko soobee te ànd koog taalibe yëpp. ñu ngi nag seen plateau spécial diggante Serigne Touba ak rakam ju baax ji maam Thierno Birahim borom Daarul Moxti